asalaamualeykum wa rahmatullah mbokkum jullit bi maag yow ñàkkuñu ni am nañu xéewal gu ñu suñu borom defal tabaraka wa taala moo xam am nañ alal wala am nañ jàmm walla sax am nañ ay soxna yu baax walla sax am nañ xéewal gu ñu bett lool ñàkkut ñu am ko ci mbokkum jullit léegi nag loolu buñ ko amee bëgg nañ mu dolli ko bu dee alal bëgg nañ mu dolli ko bëgg na bari bu dee soxna su baax bëgg nañ mu gën a baax bëgg nañ njaboot gu baax tegu ci bu dee jàmm lañ am bëgg nañ jàmm ji gën a bari mbokkum jullit am nañu secret bi nag loolu laa bëggoon maag yow ñu waxtaan ci mbokkum jullit secret bu yomb bu gatt lool mbokkum jullit muy lan muy nuy sant yàlla fu ñu toll nañuy sant yàlla fu ñu toll ci xéewalam yim ñu defal li feeg ñu ngi dëkk ci sant yàlla ci xéewalam yim ñu defal lu ñu mën a am ci jàmm ak xéewal ak alal day gën a yokk day gën a bari mbokkum jullit ndax yàlla moo wax ci alquran mu ni la in shakartum la azidannakum nee na bu ngeen ma santee danaa leen dolli mbokkum jullit aaya bi ñàkkul li koy dégg bari na lool ñu bari ci ñun dañ koy dégg rek bàyyi mu jàll parce que dañ ko yàgg a dégg mais dama bëggoon maag yow ñu fàttalante waat ci façon bi ko yàlla waxee nga xam ni sant yàlla lan la mën a def ci nit ki arab boo nee azidu mooy danaa dolli azidu mooy danaa dolli léegi nag boo yokkee ci kanam la muy la azidu mooy tekki wallahi danaa dolli nga yokk ca fin ba nuunun bu ñu sadda maskab daal bi damm la woon nga def ko da muy la azidan na mooy wallaahi danaa dolli dolli dolli dolli dolli loolay tekki allahu akbar ci lan ci bu fekkee noo ngi sant yàlla ci ay xéewalam yi mu ñuy defal te mënuñ ci dara mbokkum jullit kon foo toll mbokk mi nañu sant yàlla mu dolli ñu buñ amee alal nañu sant mu dolli bu ñu amee oto nañ sant mu dolli buñ amee jàmm nañu sant mu dolli buñ amee soxna su baax wala soxna yu baax nañu sant yàlla dolli ñu doom yu baax mbokkum jullit mën na am nga ni waa man su ma ameen bag ma sant yàlla ndax yàlla daf may dolli beneen bag dañaan la déedéet waaye nag yàlla dalay dolli ak yombal ba yeneen diplôme yu ko gën a kawe topp ci yombal la ab liggéey lu baree bare noonu lay demee mbokkum jullit nañu ko bàyyi xel waaw sant yàlla xanaa xamoo ni dalay défendre ci mbugalum yàlla mbokkum jullit aha yàlla nee na maa yafaalu llahu bi adaabikum in shakartum wa amantum yàlla mu ni sama mbugal mi lan laa koy dooyee su fekkee yéen nga dëkk di sant yàlla ba noppi dama gëm kon li feeg yaa ngi gëm yàlla di sant yàlla yàlla mu ni mbugal mii ma am doyoo ma ko dara ndax duma ci mbugal kuy sant yàlla allahu akbar mbokkum jullit léegoo-léeg nga dem ci dëkku àll ya nga gis baykat bu bay fukki bërigo gerte am beneen baykat bu amul sax benn kal bu ji gerte ndax kii am fukki kal dafa gën ki amut ki am fukki barigo daa gën ki amut benn kal yenn saay sax ki amul dara lu mbay moo ko gën a ragal yàlla gën ko gëm yàlla kon kii day amee na njukkal yàlla sant ko lool bu bëggee yàlla dolli ko xanaa kon ki amut kal danaan man kon jëruma sant yàlla ndax aw ma dara ñépp a war a sant yàlla ndax jullit bi léppam dafa neex léppam dafa neex déglul ma wax la yonente bi alayhi salaatu salaam ci benn xadis boo xam ni ñu ngi ko jëlee ci as Suhayb ibnu Sinaan ar Ruumi xadis bi muslim moo ko solo yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ajaban li amril mumin inna amrahu kullahu xayr wa laysa daaka li ahadin illa lil mumin nee na man daal yéemu naa ci mbiri jullit ñi jullit ñi seeni mbir yéem na ma ndax léppam aw yiw la léppam xéewal la léppam bànneex la nee na nag loolu ab julit képp a ko am nag ñu ne ko waaw lu tax mu ni in asaabathu sarraau shakara fa kaana xayran lahu allahu akbar nee na su fekkee bànneex da koo dal mu sant yàlla ci bànneex bi nee na day nekk aw yiw ci moom ndax ku sant yàlla yàlla dolli ko te ku sant yàlla yàlla du ko mbugal mu ne nag wa in asaabathu darraau sabara fa kaana xayran lahu nee na bu fekkee naqar da ko dal te ñaar moo am ci àdduna bànneex ak naqar nee na su fekkee naqar moo ko dal mu muñ naqar bi nee na day nekk aw yiw ci moom ndax képp ku muñ yàlla ànd ak moom allahu akbar kon yow mi amul sax dara muñal ndax yàlla ànd ak yow ndax yàlla nee na ku muñ ma ànd ak yow xoolal mbokkum jullit jamonoy campagne bi nit day jóge Casamance dem ba Ndakaaru ngir bëgg ñu ko topp nit jóge Ndakaaru dem ba Casamance mbaa ba Fuuta ngir bëgg ko ko topp ci ay doomu aadama ngir bëgg ko ko àndal yow nag yàlla mu ne la mu muñee ma ànd ak yow kon nañu ànd muñ waaye ànd sant yàlla bokkum jullit kon mbokk mi loolu mooy sunu fàttalante maak yow yàlla li mu ñu defal ci ay xéewal kenn xamul ni mu toll benn exemple la ngi nii mbokkum jullit bi bu fekkoon ni yàlla def ni képp ku nooy joxe juróomi dërëm benn nooy ku ko nooy joxe juróom sama classe gi fan lañ jëm fan lañ jëm fan lañ jëm ñi amut lu ñu ndekkee ñi amut lu ñu añee fuñ jëm wala yàlla mu ni xaalis bi sax garaawut waaye ku nooy benn nooy ñu jël ci yow benn tuyaaba muy fay bi sama classe gi fan lañ jëm ñi nga xam ne liggéeyuñ dara amuñu benn tuyaaba dañoo sàggan fan lañ jëm waaye nag yàlla mu ñu déedéet nooyi leen heure bu mu leen neexee gis leen dégg leen wax leen lépp ay xéewal la yéen a ko moom kon alhamdulillah alhamdulillah bokkum jullit foo mën a nekk maag yow nañ bokk di sant yàlla ndax yàlla dina dolli ci ay xéewal mi ñu defal te mënuñ ci dara bokk mi yàlla nañu yàlla boole defal jàmm fi dunya wa fi axira defal ko mboolem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu